beribagas, Musa beribagas, Musa beribagas, Musa beribagas. Luna mu tukku ca, Luna mu nekk ca. Wani ya, yow maa ngi lay xool fii ne si couloir ba ci suuna nekk da yaa ngi fi sa tëbi toog. boo damaa fi di cotiser dépense bi. Hmm. sama dépense bi damay dem marché. cotiser ok war a da ngaa teel a ñëw ndax li teel a li tax a ñëw mooy ah dépense léegi dañ koy cotiser xam nga ne man damay cotiser dépense maa ngi taxaw di chance a lijjantee dépense bi fu ma ko war a coxat coxatee ba ba cotiser ko ne ko jàpp indil la yow nga may yàqal. man du ma jeg boo xam ne dañ lay cotiser dépense di la ko indil xam nga laa bëgg nga mel ni sa moromu góor ñi. yow dama bëgg nga mel ni sa moromu góor bi ku si xëy rek. da nga naan cëpp say tank ci lal bi rek joxe dépense am dekk mais yow gisé yow ñu ko jom parce que dañuy xey dem liggéey doori waar yow xeyo lu dul dem ci grand place aga wayar eh da nga ñàkk jom. xoolal eh dama eh faut pas déparler la boo rëbee yow même sama jaam ma nga naan nii. faut pas déparler la boo doo tekki yow doo tekki si àll. yow naa la de. dimbali ma doo tekki laa la yow ñu sant seek ñeewu ma leen. yoo xam ne ñaanal loo ma jàmm yow mi naa man doom kër gu baax. yoo xam ne yow yow man dama may xam nga na gardé sax mu ne la acca ñu dem ca lépp si bëgg am lépp si bëgg yor soo ko waxee ne dama un malik man man man dama la laa def ban ban man ban bay bay ndol yi ndol yi ndol yu met asalaamaaleykum ay maaleykum salaam wa rahmatulah ngeen def waay sant bu baax waay ngeen dafa coono waay maa ngi tàng maa ngi ci jàpp alhamdulilah alhamdulilah doxe ngeen fini rek soriwul dara soriwul dara dëgg yàlla man nag doxandéem naa si dëkk bi yaa ngi dégg faral naa si mbedd bi ñetti fan aysan ngi dégg ñaari fan a ngi sax sa mbir bi dara dugg si maanaam lekk ma daal waay masa waay dégg si noonu daal laa laajtee si koñ bi dugg naa fu ne laajte ñu ne ma duggal kër gi ba xam si laa fi ñëw dugg di wër néegu lu yaas bu ma amee sax baax na maanaam daal néegu lees la lay wër. ci gàttal maanaam ci misaal su ma la déggee bu baax comme ni nga ko waxee rek. d'accord location lay seet. mu ngoog waaw yow agsi nga ne alhamdulilah. alhamdulilah ribaala tabarakallah. waaw te di nga am nekk. Hmm. ndax man ah, suma kër gi. Hmm. fa tabarakallah. Hmm. maa ko suma soroo fi ne ak sama doom. ak sama ñaar doom sax laay wax mhm. ah léegi dal, xamna naa damay oosal ah, ben bar mhm. mu génn neeg bi abal la nga dugg sama jar na ko tamat ah, ah, tamat ndax lool xewal la lay bax ñu comme nek balé balé léegi mu ngi fa waay da ngay def weer 20 mille rek su ko defee mo loy la ko neeg deguma 20 mille 20 mille daa bari góor 20 mille daa bari daa bari fi mo deug dafa sori ba ma manam manam juroma juróomi juroma juróomi euh, euh manam manam xamoon nu ngi si si olof daal moo ma toog yaa ngi dégg hmm. dese ma loolu maanaam daal 30 mille laa fi dese maanaam juróom benn junni laa fi dese bu bëgg bëggoon kaa joxe caution maanaam ñaari weer maanaam daal nga defal ma ko ñetti junni chaque weer ñetti junni ma jox la caution benn junni te indaale nga 30 mille ma jox moom kay moom bu ñu moom man ñu la ko jàpp léegi kay léegi sax du yàgg du yàgg moom kay naa am néeg rek naa am néeg bu ma fanaan bu ma suturloo rek ok d'accord hmm. ok d'accord hmm, léegi ah def dinaa ko gérer ah benn benn baaro. waa kay kaay waay. alhamdulilah. Mhm. waaw moom moom dafa dafa dafa wele. dafa wele. Ah, maanaam wele moom dafa ñaaw. Ah, ah, benn baar leen laa bëggoon. Mhm. ah pour sa kii bi nu ko koy waxee sa kii bi sa néeg bi. Mhm. soo jugee nga dugg ci biir. sa basang boobu ngay tëdd. nga génne ko joxal ma ko kii ah génne duggoo génne sañ jóob dugg. Pouyen yéeg tey dem sa faya. wóor na yaay duñ def yow papa yow nit nga yow. yow nit nga yaay waxay nga yaay waxay. yow dee dem safara. Eh, yow yaa di maye eh, yaa di maye yaa di maye yow. benn baa dama ne la. sa morom nag. dama bëgg nga génn nag wii jox ko sa njóob. génn ma fee ah. yaa. booy booy booy jàppale sa baay rek teg. Eh, eh, sa baay yow. Ah, sa baay sa baay yaa wax. duma sa morom nag. Oh, di dëgg. waxoo benn dëgg yaa wax. di nga génn néeg bi dafa daa xoolal ay da ba lay duma ay ah. eh, duma man ay duma. ay ay dañ lay neex. ah ware ware kaay. yow kay gi yow ñàkk nga jom yow kay gi yow douze yooyu fee dey. booy loolu garaawul man douze amul amul si man muskila weer ba weer benn yoon laa dem douze. alhamdulilah Diop Diop Diop ani yaa looy woote. waa da nga am gan. dama am gan gi ganu ganu xéwal. pardon ah xéwal nga maanaam maanaam li tax ma leen xéwal nga. Ah. yaa fii dara indi xéwal. 30 millions nga mën dara jox ko ah. a dépensé la dëgg la dëgg la kii gan gan la sax dama koy luy néegu benn baat. Ah. dama bëgg benn benn baat te wax nga wax ak moom nag te xam naa nga wax moom. Eh, lan luye. dama kaa luy néeg. cur jam du ma ne waxoon naa ko gis nga yow nijaay nag yaa ngi bëgg a ëppal yow yaa ngi bëgg a ëppal de yow li xale yi di wax naan fil filaa la nga bëgg a fil romb xam la laa bëgg nga xam ko mm. fii ne bu ñu luyee amu fi yow dimbali ma amul may wax ak yow leen laa lay wax de yow bu guddee da ngay si kaw lal bi sa ñeba tudd suuf ñëb bi bañ ko defaree yàggul jox ko benn baat mi mu siy fanaan leen laa bëgg nga xam ko de ne bu ñu luyee amu fi seng yaa ngi waaw soxna Seme loolu garaawul duus garaawul man nee la weer ba weer benn laa dem duus yow joxe fii joxe fii waaw baax na employé yéen yéen a a. gaaw gaaw ah sëñ Diop. bul topp sa xol xanaa man maay kilifa ci kër gi. Ah, andi l'avance. gaa gaa di nga joxe avance bàyyi ma wax ak sama papa gaa yow àdduna sooyo yoo gis négociation yi. waaw fii ñu ñëpp benn yéen non ay ab violence. Mm, mm, mm. papa gaa yow sama kilifa nga yoo wax yeeg. yoo yoo si loo moroom njëkk waaye di ko man de wax bëgg nga xam ne ñun wa kii ay dëmm yéen. Eh, ay dëmm yéen kay. ay dëmm yéen ñun. ay dëmm yéen mag lañ. ay dëmm yéen ñun sama yaay gis sama yaay mooyee eh, yekkaate sama da nga am goyzu man damaa bëgg goyzu goyzu yow yow da nga am goyzu ah. waaw xool sama papa yekke yi ñëpp ñëpp yi jeex man xool eh, eh, un cigare yaay yéegi ma ne yekke ni yekke yi mu jeex kon daal maanaam daal su may déggee bu waa bu baax li nga wax xiiwal gi daal ma ngeen bëgg xiiwalu man ngeen bëgg bëgg xéewloo. mooy dama xalam yow. ñëw baax na si yow. Ah, ñëw dëgg la ñuy yëkk ah góor ñuy yëkk ah duma la góor moo tax daal. vraiment ko daal kii xéewal la. ah kon ma ngi doon xéewal. yow sa kër ngay ku ko kii mooy yey xool ku la xool ku la xool. te man damaa bëgg gauche damaa bëgg gauche. yow ku la xool ku la xool ba seeb la xam ne dënnu pire nga. très bien sa këram gi. dimbali ma yaa ma gën a doon dënnu yow moom da ngaa lekk ba suur. maa tay yow de tay fi mu yendoo yow la ñuy jogaloo la kon sama yaay ni mooyee daa yekk nit ba mooy. li xale yi naan kon lool kon yees. ay góor gi doo dem ay ay ay góor gi Aliou waaye papa muy doon est boo bëggee xaalis da ngay liggéey ñàkk a jëm tey ñàkk a ji yow yaa ngi lay liggéey. papa yaay papa yaay yaay yow da laa leen di mën a. yaay papa dañoo waay dañoo waay papa dañoo waay. dañu koy génn papa sama papa yow yow da ngay xamal ne yow léem na yow tey bis bi tey. papa yaay li jënd tey. waaye yekk ma yekk ma yekk. papa yaay papa yaay papa yaay.